الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ñëwaat ci 1771 bi awnillahi wa tawfiqi nekkoon ci njëlbeenu at mi dugg ci buntu asaka ak e, ñi koy génne ak ñi ak ñi lànk ak ñi xëy dinañ ko génne waaye ni ñu koy joxee njariñ la lu bari lool ak jëmmi saraxe nga xam ni moom bu la yàlla joxul wërsëg woo mën a génn asaka waaye jox na la loo mën a saraxe saraxe nag dinañ ñëw incha allah bu yaatal ci li nga def muy tolloog yoolu sarax ak bari ak a bari te xaalis bokku ci nga xam ni saa yoo xëyee mën nga cay def ay yëf yu bare bare bare yëpp yëpp ñu bindal la yoolu sarax mu nga ni boroom moo xam nit ba xamee ni nit nag day juum day fàtte day topp bakkan nit dañ koy yóbbaale nit day ñàkk ñàkk pexe mu defal ko rek bu defee bu baax mu dolli ci juróom-ñeent ci li gën a tuuti muy fukk mu bindal ko ko fu mu fu foo xam ni yàq du fa àggati ci waxin ndeysaan bu defee lu bon ñu yeex duñ ko bind mën naa am lee mu tuub réccu ko mën naa am mu tuub ko bu ko jéggaloo ñu jéggal ko ko bu ko jéggaluwul ñu bind ko bindin wuñ koy mën a fompe bu ko jéggaloo ñu fomp ko wala léeg-léeg mu def loo xam ne jéggal lañu koy bàkkaaram te yëgu ko pourtant jégguluwu ko de kon lépp lu dul bokkaale yàlla dina ko jéggal boromam te saamu tuub ko lu dul bokkaale rek waaw yooyu dafa dal xel dafa dal xel waaye alal bu ñu demee ba tey ji mu nekk aw xiram wu mag aw xiram wu mag xam nga bu jëkk dañoo wax ni waa màkk am na ñetti téeméeri xëram ak juróom benn fukk ak nangam waaye suñ jamono ji daanaka waxuma la xeet yi ak eh, la nga xam ni dañ koo war maal mu tudd xaw moom tuur la walla bu dul kenn ku ci nekk gis nga ni kiñ gën a respecté ci àdduna fi ñu toll yi mooy ki ñu wax almaal alal mooy bunt bi nga xam ni fu dugg ubbiko ko caabi la cum bunt bu dugg ubbi ñaar ñu xalaatul musa ànd ci wàllu sëy alal boole na leen fi toll nii jamono yiw rek yàggul dara ku noon euh, ku bokk sàngam ak ku bokk sàngam dinañu sëy doonteel euh, la tax ñu ni duñu sëy lenn la sariya ànd na ca tey loolu dañ na fi amal alal rek amal alal rek loolu moom alal jëlee na ko fi tey alal li mu fi jëlee ak li mu fi indi moon ak a baax boroom ma xamatul xariir yi bu la taggalee dërëm waaye bu la ko ŋàññalee te ñaari wax yépp ay dëgg kon nit ki mel ni mu mel ba bu alal duggee ci loxoom alal bañ koo changé kon ab biir bu dëgër alal du ko changé mukk mukk alakul xaalis waaw bokki nañ bàyyi nay gi bàyyi nay gi asaka nag mbokk mi nii buñ ko doon digtal nit ki mooy lan ki nga xëy du julit boo koy wax gën ko zakatun azakatu ibadatun maliyatun ah, ak jaamu yàlla la gu nit di def ab julit muy action boo xam ni yataxarrabu biha al abdu ila xaaliqihi asa wa jalla day tax jaam bi gën a <clears throat> jege boroomam jege boroomam mën nga ko misaal ci àdduna bii nu nekk nga wax ko société boobu ngeen nekk boroom société ba emploi yam yor yëpp yëpp yëpp eh, eh, ku ko ci gën a jege rek loola dara jala ci ña fay liggéeye xëy jige ko ba eh, mën naa jël dooleem di ci def ak sañ mu jox ko ay privilège kooku xam nga yëmul ak ki nga xam ni wax dëgg yàlla moom wóoluwuñ ko sax faf waaw ko sax faf kon luy tax nga jige sa boroom bu ko joxe ci joxe wu mat nag joxin woo xam ni ah, wu yàlla gërëm la joxin woo xam ni ci tey gi bàkkanam la joxewu ko ngir wanewu déedéet ngir ngis tal joxewu ko ngir mucc sax waaye da ko joxe ibadatan lillahi ngir jaamu suñu borom bu ko neexee nag mu ñaan yàlla musal ko ci ah, asaba noor waaye yàlla defal ko duxóolal jànn dugg àjjana waaye mucc ci sawara comme ni ko alxuraan leerale ci wa sayujannabuha al atqa allati yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila ibtiqaa wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yardaa sortu lay di ngir borom bi ni ko leerale kon joxe li muy indil nit ki li muy indil nit ki taskiyatu nafs ñun ñëpp kenn ku ci nekk boo gisee ñuy wut ay sëriñ taskiyatu nafs boobu moo tax waaye gis nga joxe bi joxe sa alal dalay defal lu mel nii rawatina génn asaka waaye danga koy jox nag ilab ci xawaaju rab bi sa ngërëmul borom dong dong nga ci sàkku ki nga joxul mu xas la ak ka nga jox mu tagg la yamale leen yamale leen ndax yàlla xañ na ko son junni junni moroom nga xam leen jox la ko yow jox ci par ay benn benn luñ am ba mën a génn asaka waaw te luy tax nga luy tax nga mel nii ci kanam sa borom luy tax nga am lii jar na ko mbokk yi qad aflaha almuminuuna alladina hum fi salaatihim xaasicuuna wallasina hum an illahwi mucriduuna wallasina hum li zakaatin faaciluun ci yàlla yàlla nee na way gëm yàlla yi day texe nañu mel ni dañ ni waaw ñoo ñooy ñen mu ni mooy ñi nga xam ni day bu ñuy julli day julli xaaci lay doon xaaci mooy koo xam ne boo ko séenee mu ni tekk nga xam ne li muy def ñor na ko te ni mel noonu noonu la mel ci xol ba dafa toroxlul borom subhanahu wa taala yëmuñu ca waaye eh, alladina ani la hum ani laxwi mu'ridun doo leen fekk ci lépp luy laxwu laxwu lépp luy ay caaxaan dañu ko won ginnaaw won ginnaaw yëmuñu ca waaye wala sina um li zakatin faa'iluun waaye li ñuy génn lii rek de boo soo ko ñett ñett yim la boo ko ràmpale rek mën a bokk ci al muminuuna lisina aflaxu gis nga ko gis nga ko mbokk yi ah, muflixuuna al falaahu maanaahu mooy najaatu min adaabi naar wal fawsu bi duxuli janna najaat ma al falaax yuflixuuna boobu mooy ñi mucc ci mbugalum sawara ba noppi am ngañaayul tàbbi aljana la yàlla boole ci ñëpp waaw ulaayka humul waarisuuna allasiina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaaliduun nan ci yàlla boole ci ñi ñi ñuy affecté ñi ñuy dëkkal jannatul firdawsi al ala al azam ñu koy ñaan inna allasiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimmaa razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura ba ay ba jeex ba ca shakuran mbokk yi si yàlla nañ gaaw bokk ci ñii nee na gaa yi jàng alxuraan nga di ko jàng di ko setantal nag jéem a dégg di jafe mu lay waar di la ñax di la dig di la dël di la bégal di la tiital alxuraan noonu la boo koy jàng day bees bus bu bus bu ne nga yëg loo yëgul woon ba at mi jeex wallahi ndem yaa xam li ngay wax wala boog ndem am nga loo ci xam ñu ne ko ñu jàng téere boobu yemuñ ci waaye wa aqaamu salaat di taxawee julli yemuñu ci waaye ñuy dépenser ci li leen yàlla wërtëgale ci lu feeñ ak ci lu nëbb di yaakaar ni ña nga ca euh, commerce bu dul lamb yéen a yàlla dana leen. sotti dana leen defal ay maanaam ujóoru um wa yasiida um min fadlihi innahu xafurun shakur yàlla da leen tëbb rëy ay tuyaaba yu rëy yokk leen ay ngëneel te loolu yàlla defal day mooy e, moom yàlla mooy xafuur mooy shakur mooy xool nit ba gërëm ko sant ko defal ko loolu waaye mooy xool nit ngir lii muy def mu leen koy jéggal ndax moom xafoor la gis nga kon kon mbokk yi commerce boomul perte nag mooy ban mooy bu du lamb mooy ban mooy boo xam ni boroom daal mooy sonn bàyyi waaye lum génne mu jar lum ko jaay jënd ko lum génne mu jar lum ko suñu boroom loo def ci lu baax rek lu bari bari acca rek teggi teg ci teggi teg ci teggi teg ci gis nga kon ki kon ci yàlla borom bi wa taala inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluuna fi sabilillahi ba aaya jeex ngeen baal ci bañ gi àggale ba ca huwa fawzul azim mbokk yi xoolal wax ju rëy jii li suñu na ci jullit ci way gëm yàlla lu mu ci ñoom ak lu ñoom bëggal ba borom bi di leen ko jaay gan njëg lañu am njëg gi la moom jafe na jafewul te liñ bëgg te mun na koo ñàkk ndax fa nu jëm fii nu romb ni ci kaw yoon wi muy àdduna ku ne dangay faatu boo faatoo nag boo dekkee yaari kër a fa am aljanna sawara léegi nag jullit ñi waaw nu ñuy def ba am na yàlla ne dama koy jaay de ah koy jaaye xanaa alal ak bakkan joxe alal ci <clears throat> anam yii mu tudd joxe cooberu ak joxe zakat gis nga bakkan waaw saa yu ndigalu yàlla jubee jibee te mu laaj nga jóg taxaw ci jàkkaarloog ay noonam moom yàlla nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ñoom bu sa bakkan roteet ba tey loolu la lay may àjjana ñaar yi la nit gën a bëgg mbokk yi alal ak bakkan la nit gën a bëgg moom nit gën a fonk wallaay laa koy bakkanam maam mm, kay moom léegi nag kon ñooñu la suñu boroom wax ni jënd na euh, euh, euh, jaay na leen ajjana ci seen bakkan ak seen alal bu wax nag bakkan fi ko teg ba kenn du rey bakkan bu lislaam reyul ku ko def mel nga ne kuréel yi lim yàlla bi bindoon lépp ci ay ci ay wakkan te da ngay dem sawara ndax sa pay du dara lu dem jahannam wal iyaasu billah waaw alal sax ci xol lool yàlla ni joxe ci joxin wii nga def ko yëwoo ca waaye ngay jox joxinu coobarew yëwoo ca waaye ni ko yonent bi doon waxe nga xam ni sa ñaari loxo yi bu ñu doon ñaari nita li ñuy jigee jigee jigee bu ndijoor bi joxe càmmuñ bi du ko yëkk mbokk yi ñaar ñooñu bu ko kenn ki yëgul kon kay doomu aadama du ko yëg danga koy jox dong ak yow ak yàlla mag ñi daanañ ko def nga ko royee ci saxaabatul kiraam kii sa dëkkaloo la wax dëgg yàlla moom li bayan dugub ja jeex na wala moom day taaba taaba di dunde yow nga tane ko nga bàyyi ba suuf sedd jël saakub dugub wala saakub ceeb saaku mboq jël benn morsa fas ca sa juróomi junni def ko ci biir saaku ba ci biir saaku ceeb bi dem ca buntu néegam ay ba njël ñu dugal ko fa dem yeewu rek gis ko walla ëmb bi yére yére yu rafet waaye waxu waxuma yére yoo xam ni may njaay wala bu sa sàll dañ koo solo solo ba mu furi diñ soog koo joxe déedéet classe ramakaaj ji nga xam ne lépp lu ñuy joxe lu ñu bëggatul la rek lu ñu bëggatul kese la waaye bu dee loo xee sax daa xaw xatte ñu mën a gisee kenn ci ah, ah, ah, doomu doomu baayam yooyu dina ko ma de lii dama xat léegi la boo ma joxee nangam day léegi ma jaay la ko waaye maye yére raba xamu ko de ala kulli xaalin kon euh, kenn ku ne nag léegi am nga njëg am nga njëg de ndax effort yi ngay def ba mu tolloo ki joxe junni yooyu yëpp den ci am yun ci tudd ndax am na ñu ko yittewoo kon suñ boroom nee na ñooñu nga xam ni dañuy rayante ñuy raye ñu leen di rey gis nga yuqaatiluuna fi sabilillahi ah, fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waaw te loolu kat sunu boroom subhaanahu wa taala nee na ah, fas ah, nu mu ko waxeti waay fabtas ah, fastabsiru bi bay'ikum fastabsiru bi bay'ikum alladi baayatum waay waay bëgg leen ci njënd mi ak njaayante mi ngeen def ak seen boroom nga xam ne def ngeen ko dalika huwa al fawsul azim waaw ah, ngañaay lu rëy ngi noonu ngeen am ko gis nga ko aleyhi salaatu wasalaam wax na ni ma min abdin yusalli salawat al xams wa yasuuma ramadana wa yaxruju zakata wa yajtanibu al kabaira sabaa ila fataat lahu abwaab al jannati wa xiila lahu udxul bisalaam rawaahu nasaayu an abi hurayra nee na amul benn jaam bu julli julli juróomi di woor weeru koor di génn asaka di moytandiku juróom-ñaari bàkkaar yu mag yooyu di sawara lu dul ni dañu koy ubbil wunti aljana ni ko dugal ci jàmm subhanallah yii rek condition yii rek lañ la tegal kon les na les na ci noonu kon asakaat mooy ponk bu social ci ngir nga nekk jullit mm, damay wax ni léeg-léeg julli ngay def ci aj màkk gaak woor ga lépp ah, bu bu doon amal njariñ yàlla dara lu jaam di def loolu lay doon waaye alal ji ma génne jox ko bàcc ñang mii lool ah, loolu doomu aadama ma ngi cee jariñu di sama julli lu mu jariñ bàcc ñang ak sama koor ak sama aj makk ak sama asalo laa ilaha la waaye nag benn bi nag ah mbokk yi kon jii diine mooy diine jëmat mooy diine jëmat waaw ala kulli xaalin kon nañ seetal liggéey bi nag mooy tax kan boo ko génnee asaka mu tudd asaka waaye liggéey boo waxee la ko sos dafa xaraam addiya ak asaka yépp dara mënu ko seetal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lianna xad saxani liwatani bi nafa ma anfani